salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum sama mbokku internetu sans limites yi comme ni ma la ko waxee nee naa leen seen mbégte mooy sama bànneex ci li leen neex loolu mooy sama joie seen doom seen xarit Fatou Mbaye tey nag ma ñëw seet si nag ndaanaan ndaanaan bi nga xamante ni li <laughs> ci lim nekk dajee spécial muy kan Mbaye Kouthia Mbaye Kouthia tey laa ñëwoon àgg si seet si ko. <laughs> ah kon mbay laa ñëw seet si tey Mbaye maa ngi lay nuyu Mbaye teel nga ma araftu de. xam ne kat loolu naa Mbaye Kouthia tur boobu kenn da koo déggati. da ko bàyyi boobu. man kur bu tur boobu ko ki ci taxoon ñuy wax sax doxatul man may dox man mbay may dox xam nga bëgg a taxaw fii bëgg maa tojal naan ma Mbaye Kouthia ki taxoon ñuy wax tur bi doxatul. kooku dafa doxati. waaw yow tamit tamit ah. kon boog mbay soo nekkee si jamono luy dox ngay wax mais lu dul dox danga koy sànte ko fee xam nga pomme de bu nëb ah kenn du ko jaawaleeg pomme de boo nga xamante ne bu baax bi la mais mbay mbay mbay ku fàtte la la fal la la day yomb tey bu ñu xamee mbay Kouthia grâce à Kouthia ah man mbay Kouthia la la xamee d'accord maa ñafe ba egsi fii ma egsi fu ma romb ñëpp naan ma mbay waaw am na koo xamante ne daf ma woon ma jox ma sa numéro ma envoyé la xaalis ma jékki-jékki mu def deux cent mille def si Mbaye Kouthia ma ne ko supprimer bu ma ko envoyé ti Bosnia moo nekk xam nga Bosnia xaritu Wally Seck bu nekk États-Unis di dagg moomu gàcce yi mu ko envoyé man ko ñaa soo ko defatee Mbaye Kouthia billaahi Mbaye Kouthia jëlal si. yow lu la waaye mënti may boole ci Mbaye Kouthia bëggoo. bëgguma <laughs> bëgguma quoi. mbay bi daal kon mbay tout court kon kon kon Bachir euh, waa Sénégal waa àddina kon léegi mbay mbay bi doxatul nee na lu ko waay mënti may muy kër muy villa lu la nit mënti may boole ci mbay Kouthia bëggoo mbay ginnaaw bi nga nuyoo waa àddina nuy waa Sénégal nuyu suñu mbokku internet yi mbay euh, chaque jour mbay ci détail chaque jour mbay ci coow mbay mën naa ne boo jugee ci lii rek yaa ngay dem ci lee nga joteeg sa xarit sa frère ki nga xamante ni mooy Pawlish mbay ngeen amoon fi bagaar ba affaire yu yoon am ci loolu loolu fay yi nan la demee parce que wax ci bari woon na coow li bari woon ñi naan mbayee tooñ ñi naan euh, Pawlish moo tooñ mais toor bi yëpp nag yow lañ ko joxoon xaw ma nag nu demee. xam nga euh, toor bi <laughs> euh, bi il faut ñu jox ma ko <laughs> parce que dafa am ñoo xamante ne Sénégal ñu bëri bëgg nañ maa bëri bëgg nañ maa dugg mënu ma mënuñu maa dugg man kenn du ma kenn du ma gis soirée kenn du ma gis kenn du kenn du ma si gis ngénte kenn du ma gis xew duma jël sama téléphone ku ma woo du ma la jël xam nga ku ma ku bëgg a wax ak man du du du mayu ma fu ma wax ak yow. may foo teg loolu waaw kay loolu moo tax nag di nga am ñoo xamante ne su ma defee toor ñëpp dañuy profité génn pour bëgg ku si nekk ma tontu la. tontu boobu nag ah ku nekk day bëgg ma am ah, soo ton soo waxee ni mbay moo kii mbay tal tal tal man la tal tal tal kon yoon yoonu duggante day am ñi si wax ñëpp da nga gis ma tontu leen tontuwuma kenn parce que nit ñi dañ may envoyé sax mais xaw ma leen si yoon la lu ma def nit ñi nit ñi saaga nit ñi teg ma force te man kilifa yaa ma bëgg su may wax ak damay wax ak ay kilifa parce que koo xamante ne Tahirou Sarr milliardaire daf maa jox cër koo xamante ne Aziz Ndiaye milliardaire daf maa jox cër koo xamante ne Macky Sall daf maa jox cër damay wax ak moom euh, koo xamante ne mm, Amadou euh, Amadou Sall day wax man euh, koo xamante ne ñoom Babacar Babacar Ndiak day wax ak man milliardaires yi di wax ak man lu ma toor day day dañ naan ma mbay bokkoo si ñii génnal si coow yi baaxul arriéral comprendre nga su ne force ma génn su ko xamante damay wax ak ñoom nan laay doxee ay dof taxaw si internet ñoo xamante ni amuñu liggéey dañuy xëy suba ba jant soow ah dem fa nekk France wala foo xamante ne yor seen connexion di taal seen téléphone man dama am jot boobu ah man man TikTok rek ma kii say say may affaire rek laay dugal du ma ma jékki sax di di wax di dugal TikTok dama am boobu. mbay tooñ gi tooñ gi pour lan la nga fekk sa nawle taxaw nga tuumaal ko am benn baat boo yëkkati teg ko ci kawam loolu pour lan la. sa digganteeg euh, Pawlish euh, Mbaye dama ne woon sax loolu duma si waxaat parce que euh, dama teg dama góor parce que dafa mel ne loolu la quoi Pawlish ak fu muy mujj li muy li muy dund sax su ma ne ko waxee su ma toogee ne dina ko wax li muy dund sax da naan moo raw góor jigéen waxuma lépp man dëgg ma rey man dëgg rek laay wax man comme li ko ji man dégg rek laay wax man du ma naa fekk ah du naa fekk waaw du ma naa fekk du ma dara l'essentiel dëgg moom la mu koy wax Fatou Mbaye Fatou Mbaye li muy def moo gën moo gën moo gën moo gën moo gën moo gën sax sedd góor jigéen billaahi su yemoon si si loolu rek sax mu ne xam nga dama na ko koo boros rek noonu parce que dama ko doon cokkaa sukki ma wax ko lu muy dund loolu boros la ci fan laa meewoon fan laa meewoon suñ suñu émission guddi gi waaw moom invité wuñ ko lu muy ñëw moom invité wuñ ko de lan lay ñëw foofu. mais dama fàttali yooyu bay ni yow dañ la dàq ci ci foofu nga doon liggéey. fan ndax loolu nga def. guddi gi commencé waan naa. mais dàqoon nañ la. non non coow lee bëri woon moo tax ma teg toog waaw ah, parce que da ngay gis sax sooy nekk direct sax ruube yi gars yi dañuy ruube di la kii waaw man l'essentiel man internet dama see soriwul. comprendre nga ne dañ may wax rek waaw dàq ko ñu mën a démb rek am naa émission xam naa da ngaa a seetaan. Mhm. mais affaire yi nan nan nan la mujjee parce que amoon na ay plainte euh, kii di Pawlish dóoroon na la ba gaañoon la nga def plainte fan la mujjee parce que yaakaar naan ne affaire yi mujjeewul fenn de. non affaire yi comme li ma la waxoon rek ñi ma samay kilifa ñoo neen génn si ba pare xam nga man damaa rus damaa rus waali damaa rus Ndiogou Mbaye damaa rus ay ñoom njaga dama leen rus daal ak ñoom Aziz boobu boo soo xool sax ñu waal jour temps yooyu nekk fi nekkul Sénégal dañ maa dañ maa woo appel appel WhatsApp dugal Pawlish dugal ko ne ko ma ma ma ma ne buñ laay taalaay baal naa ko. mais yaa tooñ yow. ah tooñ yow yaa tooñ. tooñ ma de Pawlish a dàq tooñ Sénégal Pawlish moo dàq tooñ est-ce que xam nga ne man maa ko gën a man maa ko gën a mën a tooñ man maa ko gën a réew fu Pawlish xam nga lu muy liggéey Pawlish courtier la courtier courtier la Pawlish lu muy def moo gën a li muy dund moo gën a moo gën a raw góor jigéen Pawlish courtier la maanaam yow am benn xale bu ku la nopp woo Pawlish ne ko ne ko ko Fatou Mbaye laa nopp Pawlish jox ko numéro kooku fay ko waaw loolu mooy liggéey courtier la xam nga loolu moo gën a moo loolu la ci leer loolu da nga am ay preuve la. courtier la courtier la yow yow yow yow courtier la. billaay wallaay taala ay Pawlish courtier la day day fayeku moom moom amul liggéey Pawlish amul liggéey amul dara yow yow yow loolu courtier courtier moo gën dox Sénégal day dem fii ba France ay kii di may ak jigéen Pawlish billaay wallaay taala yaa ngi tooñaat de billaay Pawlish góor gi courtier la billaay Pawlish gëm leen ma ngir yàlla Sénégal gëm leen ma li may wax oh billaay gëm leen ma Pawlish sax li mu naan ay day day day day day say day day day bees billaay walaay du bees billaahi walaay taalaay Pawlish du bees man ni ma xawal Pawlish Pawlish dafa mel ne sama ko téye Pawlish du bees de da leen nax oh. mais Mbaye baalul Kouthia rek eh, baal baalul baalul Pawlish maanaam Kouthia man Kouthia ba baalu. taxawal taxawal Fatou Mbaye sama yaay daf maa woo may jooy deux fois deux saa yu ma wooyee ma. dóor yi dafa métti. taxawal deux yu ma ma 17 coups la dóor. la xoolaat leen ko 17 coups yoo xam ne dafa maa bett boo xool sax xam ne dafa maa bett ak naqar bi ma dund yëpp si metti mënu ma woon tëdd si lal ndax metti la la gaañoon fii la ma gaañoon wér na. Mhm, wér na wér na affaire bu garaaw a garaaw a garaaw billaay wallaay taalaay wér na loolu metti la ma def Pawlish moo tax su ma la koy expliquer sax danga naan ma lii danga war di jooy sax chaque jour billaay wallaay taalaay. billaahi walaay taalaay non affaire bu doy waar bu doy waar bu doy waar bu doy waar Pawlish Mbaye la def Pawlish moo xam ne beneen affaire Pawlish du sëy xam nga lan lay def Pawlish su mayee jigéen <laughs> Pawlish du dafa am vice vice vice Pawlish laa leen wax vice xool moom comme woo ma comme woo benn benn waay néegam boole leen ak ak jigéen ñuy sëy comprendre nga ñuy def yu saay-saay moom mu toog ne di mballu moom loolu mooy visam billaay wala ay eh, gëm leen man damaa bëgg Sénégal ngeen ubbi seen bët ngeen xool man billaay ngeen xool li may li may wax ngeen jàngat police non police way du sëy dañ ma billaay loolu mooy visam billaay du bees moo tax mu dox si Sénégalais yi mu dox si seen kaw ah pour ngeen xam ne police day bees mu naan damay bees damay bees billaay beesu police day boole ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor comprendre nga. ñu ñu mu toog fee suñuy bees suñu suñu kii moom muy mballu Pawlish suñu la Pape bi oh. lii dama si am lu ma leer na ma yóbbu fu ma neex billaay dama si am ay preuve yu ma leer Pawlish Sénégal c'est que su may wax dañuy teg ne kii fenkat la wala ay mais samay wax jalu mbuus la billaay walaay taalaay faatu Mbaye gëm leen ma ngir yàlla gëm leen ma gëm leen ma demaat leen si Pawlish ngeen laaj ko lan lay dund loolu lii lay dund. non non wax laa koy bàyyi lii lay def lii lay def su dee sàcc dama naan ko sàcc la waaw lii lay def waaw waaw lii lay def waaw wàllu du sëy day mballu mballooy liggéeyam ah day wut ñaari jigéen yuy sëy comme ñaari ñaari góor ak jigéen yuy sëy comprendre nga suy kii muy mu nekk foofu di di di di di di mballu loolu loolu yoon la loolu Sénégal tamit si policiers yi oh sama xarit bi policiers yi liggéeyuñu gendarmerie yi liggéeyuñu yooyu yëpp dañu leen war a dañuy war di dugg si affaire yi di di di xool di contrôler bilaay liggéeyuñu dañuy war liggéey di di jàpp ñoo ñooñu genre yooyu su amee si Sénégal dañ leen war a jàpp leen yóbbu leen parce que dañuy yàq jeunesse police baaxul si jeunesse. mais yow sa plainte bi tey gis nañ nga def plainte mais plainte bi mujjul fenn. waaw dañ maa ñaan dañ maa ñaan. waaw dañ maa ñaan Baye Ndiaye moom ma woo ne ma retiré plainte eh, yaakaaroon ne tey boo demoon ci plainte bi yow Pawlish du am dëgg sa kaw billaahi wallaahi dañ ko doon tëj billaahi Pawlish ndekete ndekete dafa dafa dafa bëri ay plainte foofu tegal nañ ma Pawlish am na fa 17 plainte yoo xamante ne dañ ko foo baal dañ koo baal 17 plainte otom bi amul amul kii amul amul amul amul ay kii amul dara xam nga la dafa bëri yoo xamante ne dégagement yoo xam mi ngi koy def ba pare di di di di di namp di di di di sëy ay xale jigéen yoo xam ne leen di nax du leen fay ñooñu tamit porte leen plainte comprendre nga loolu loolu il faut mu mu bëri fa ay plainte xale yu jigéen yu bëri yoo xam ne <laughs> police suy suy bëgg kii moo amul jël amul dara fee ma almadi lay nekk di ramasser xale yu jigéen ñi taxawal foofu di yóbbu kër seen kër comprendre nga di la nax di la nax nag bu feyee la comprendre nga kooku su demee police fay téléphone am du la fay waaw loolu loolu plainte yi day bëri. waaw léegi nag policiers yi sax ñoo ma doon ñaan man gendarmerie si boppam. Tamba am pour nga bàyyi. Tamba mi ngi may dégg dafa ma doon ñaan. billaahi naan ma baal ko waaw yow Fatou Mbaye kan moo nekk si dëgg Fatou Mbaye kan moo nekk si dëgg. senegal ah, Sénégal ñëpp ne na yaa tooñ. waaw waaw yow waaw yow Sénégal bàyyi na leen mag Sénégal waaye Sénégal ay ay ay ay waay yow ay mbaal fa fi nekk. ah non non Fatou Mbaye mer damay mer de barke alxuraanu karim damay mer billaahi wallaahi taala ah, bu mer li may wax gëm ko da nga ko war a gëm. gëmal li may wax dëgg la dëgg la gëm ko waaw. mais gisoo ni yow Mbaye Kouthia depuis bi nga bi bi nga Mbaye xaaral ah, noppi sax Mbaye Kouthia bi man dafa mel ne dañ ko waa toogal eh, mbay eh, depuis bi nga jugee ci Kouthia gisoo ne bës bi dafa xaw a dafa xaw a da xaw waan ci ay ay ay ay guuta rek ngay dugg depuis bi nga jugee ci Kouthia mais bi nga nekkee woon ci Kouthia da nga xawoon casé wu nekk beneen Mbaye mais bi nga jugee ci Kouthia ay guuta tooñ ay affaire de plainte gisoo ni gisoo ni waaw c'est foofu ba man njaga moo ma yóbbu moom ma moo ma moo indi woon foofu man foofu dañ dafa bëri dañ maa dafa bëri ay cadre yoo xamante ne dañu ma téye woon du daaw ma génn comprendre ga sama téléphone sax daa am heure yoo xam ne dañ koy jox comprendre ga maanaam dundu woon xaw dara waaw ba pare ku caa woon xamul yu bëri comprendre soo solee désiré sax mu ne summi ko parce que man ay kilifa may seetaan comprendre nga euh, loolu la woon moo tax ba pare lu si xew lu xew lu xewoon moom mooy jël wax si wax moom mooy nekk si kanam ko périodiquement ba loolu du feeñ. waaw moom yow doo feeñ. waaw man du feeñ moom day nekk si kanam quoi angu affaire yi waaw moom noonu la doon def moo tax affaire yu bëri du feeñ mais man man du bëri di di di di laa ilaha illallah te fi mu bëri woon na fa ay problème kii de. laa su ma jugee si lee dem ci lee su ma jugee si lee dem ci lee mais Kouthia mooy taxaw si kanam cadre ko moo moo doon góol bi. Kouthia moo doon defaan. waaw lu ñëw moo si moom moom lay dal. ba pare yaa ngi nii di ko xalaat bëggatoo mbay Kouthia. la doon defaan yow yow yow yow yow yow yow ngir yàlla ah. doo génn foofu nag ngir yàlla. ah yow ne yow yow yaa wax ni yow Kouthia bi nga nekkee woon TFM. Euh, euh, foofu bari woon nga ay problème mais lu ñëw ci kaw Kouthia lay dal Kouthia mooy àngu lépp yow yaa ko wax sa gémmiñ waaw loolu waaw mais li fu nekk nii nekkatuma foofu moom waratuñu wax Kouthia kay ah waaw loolu lay kas rek waaw nekk mais tey nit ñi bu ñu la xamee Kouthia moo tax da ko war a gërëm sant ko gërëm ni ma gërëm naa ko li may gërëm yéen a ngi déggante yéen a ngi déggante déggante wuñu de ñu ah, ah kay loolu la ñu toon ko sa bopp sax déggante wuñu may lañ lañ may waxee mbay Kouthia waaw dégganteetuñu di gisanteetuñu waaw ko xamante ne ay ñetti at di gisanteewu leen xaw ma kon kay te ngeen may wax way Kouthia ñetti at gisanteetuñu ah ah ñetti at laa wax gisanteetuñu ñetti at dégganteetuñu ay xaritam rek ñoo may woo di ma di ma dégg naan ma damaa bëgg ñu yóbbu la foofu nga jiwóole lan laa fay def suma suma jubóog moom. baal ko tuub baal lan laay tuub ñoom kay ñoom war a tuubal ñoom kay surtout <laughs> ñoom war a tuub senegal lan moo tax xale xale su nekkee di dëgg ñu ne mag moo nekk si man moo man moo Sénégal nañu yooyu. mag ñi mais xale xale mënul am ci mënul am. ci kaw ma mag nag mag ñee daa ko tooñ. man ji dañuy toog xale ba pare naan ay na nga ñëw kii man defu ma de man sama papa rek laay de jégalu ak sama yaay. Kouthia <laughs> Kouthia ay waay man tamit Kouthia saf na ci émission bi de. <laughs> ñëw yow mi yaa ko safal yow yow da ngaa waroon dem sax ñu may la Kouthia. <laughs> waaw Mbaye lan moo nekk lan moo nekk sa projet si yan projet nga nekk. man fi mu nekk nii ubbi naa bu rëy. yow mi site bu rëy. waaw loolu laa projet yooyu laa nekk nii ko Mbaye yow yaa ubbi waaw <laughs> si si c'est que su ma waxee yi de caméraman may ree ubbi naa site bu rëy bi nu mu tudd. billaahi wallaahi taala man la ma am xaalis xam nga jéeri jéeri ngoone fii laa koy wax c'est que dama doon nëbbu sama xaalis billaahi dama ko doon nëbbu man dama doon nëbbu sama xaalis mais fi mu nekk nii yoon la ma ma ma ma parce que man bi ma nekkee TFM dofuma de dama naan dajale de. waaw koo xamante foo xamante ni 250 000 la naan fay te boobu dërëm waruma. site bi. dama koy nëbbu parce que gars yi ñoo soxor dañuy dem foofu tegal ma fa ay nen comprendre nga mais instant eh, man man même sax damay damay bis kii kii wu Arbouraax Arbouraax parking Arbouraax ñoom Aziz am naa fa dama fay gaare ay oto damay jaay oto waaw damay man yàquma woon dama doon dajale tabax naa ñaari kër Thiès. yow mi mbay parce que billaahi wallaahi tabax naa ñaari kër Thiès comprendre nga. yor naa terrain yoo ñaari terrain yoo xamante ne ñu ngi fii euh, euh, côté kër Modou Lagros yor naa benn Kër Massar yor naa beneen Thiès comprendre ba pare xar yi Fatou mbay seen seen seen site bi sans limite yow incha allah naa la may xar du ma may waaw naa la may xar incha allah may xar incha allah maa lay jëlee sa xar billaahi Fatou Mbaye dama xaalis billaahi dama xaalis am nga man. duma waat ci ay caaxaan dama am xaalis am naa xaalis te tedd naa ba pare. billaahi yàlla na seen jàmm yàgg yéen waa 100 limites billaahi barki yàlla ma xaalis ku may gis nag ne ma teg nga dof may wax si télé bi wala nga kii ngeen maa naan mbay mi wérul làmmiñam bi xaw ma ak kii day fa bëri xeex ak day day wax lu bëri. am naa xaalis de gisee si ma sama wax bi li mu bëree nii an ma am xaalis. am nga xaalis te amagoo jabar amagoo oto amagoo dara. non <laughs> yow gisoo sama oto suuf mi ngi billaa xam sama oto ngi suuf barki yàlla sama oto ngi suuf. billaa xaar bu takk jabar. Hmm? non non sama sama jabar du ma fa takkee fii jabar. itaali lay takkee jabar. billaahi itaali lay takkee jabar. barki alxuraan karim. ndax bëggoo takkee Sénégal. non du ma ko fi takkee parce que aada sama benn seetkat bi ma fi nekkal nee na mu takkal Sénégal jabar xam nga aada moom xam nga jamono yu mu méttee moom la moo ma doon suivre sama kii quoi sama yoon. waaw kay moom xam nga seetkat bu am solo la waaw moom daf may seetal di ma woon sama yoon ak yooyu dani ma bul takk gum jabar soo amee oto mu ne bul dawal fii bul dawal fii yooyu la ma daf may tegtal quoi mhm, moo tax moo tax may bàyyi xel waaw Fatou Mbaye parce que alxuraanul karim sénégalais yi nañ xam ne dama am xaalis billaahi wallaahi taalaahi te ku fi si naan ay mbay yorul amul doole amul ba ñëw si man billaahi gis nga gardien bi ma jël sama émission naan émission invité guddi gi comme invité nga dama lay invité guddi gi ñun tamit maa ngi yow ñu waxtaan comme ni ma leen ko waxee rek nee naa leen seen mbégte mooy sama bànneex ci li leen neex seen joie ci loolu laay dox suba ba ak sans limite tout est possible tey nag mbay laa indi woon invi mu nekkoon sama invité tey mu nekk nit ku saf xorom nit koo xamante ne day tendance ak tooñ rek la mbay di def day jóge ci lii dal ci lee mbay ku caalay bañ ta mbay ku caalaa koy woowee moom laa leen indiloon tey di leen jox dig daje di leen jaajafal ci beneen daanaan beneen artiste ak beneen ak beneen comédien ci ku mënti doon rek loo xamante ni boo leen ko dégloo di ngeen leen bégal seen xol dina neex seen doom seen xarit faatu mbay dina ànd ak yéen ma àndoon ak Bachir sama caméraman bu ñaawul bi lii laa leen indiloon tey di leen jox dig daje ci beneen naanaan ak beneen artiste sans limite lay doon nee naa leen awma limite ci dara damay dem ak yéen ba mu jeex